Salut les amis de Baba Show hein. merci encore gars yi de la confiance renouvelée merci di wéy di like merci di wéy di abonné surtout gars merci di bàyyi seen commentaire mais aussi gars yi li ñaan mooy partager leen vidéo yi ak seen i yi seen rakk yi seen sœurs pour ñuy xam histoire du Sénégal ak histoire du sport ak histoire de manière générale tey nag dañuy waxtaanee benn doomu Sénégal boo xam ne mi ngi tudd Batling Siki Batling Siki nag mais turam dëggantaan Amadou Fall la Amadou Fall mi ngi juddu le 16 septembre 1987 ca Saint-Louis la juddoo ci Sénégal. nekk nag africain bi njëkk bi nekk champion du monde ci wàllum boxe waaye tamit wàllum racisme dafa dal ci kawam ba niñ koy boomee te lépp nag lu ci ëpp ca France la xewee moom ca France sax gars yi pour vous dire journa journalistes yi journaux yi fa nekkoon ni ñu ko doon wooy mooy euh, Champions-League la ñu ko doon wooye Champions-League au lieu de dire wax Champions-League pourquoi ñu doon wax Champions-League parce que dañ ko doon tëkkaleeg di ko méngaleeg ni euh, nga xam mooy chimpanzé chimpanzé mooy euh, dangin yi mooy golo golo yu mag yooyu lañ ko doon jégal ci wax ji moom lañ ko doon méngaleel parce que ñu bëri dañ doon dem bay wax naan sax ah pour rek am seen histoire ñu ne Battling Siki moom ah euh, dafa am ci li nga xam ne nag mooy donc ci àll bi la juddoo quoi ba sax man manager am déglu leen gars yi ki nekkoon manager am dem ba naan sax Battling Siki dafa am euh, ci deretam dafa am benn wàll boo xam ne deret bi ah deretu golo la quoi deretu sauvage benn partie bi deret loolu la. ki nga xam ne manager am doon ko wax ba dem naan waaw sikki moom dafa benn parti boo xam ne golo la ci moom loolu daal imagine leen sa entre sa manager doon wax loolu mais tamit manager da doon dem sax di wax loo Batlin Batlin Siki bul wax français bu jub del del jaxase français yi del bind bindu ñaaw alors que Batlin Siki dafa jàng ba ne ar dafa mënoon a wax français correctement et mais loolu yëpp nag xëy na aussi benn wàll moom ci. yaakaar ne rek ñëpp a yam moo tax mu doon doxalee nu mel moom ci boobu Batinski maintenant nag journaliste yu bëri dañ doon wax naan moom style am style golo la quoi imagine style golo la style bi nga xam nag style style kii la quoi style style style sauvage la te moom nee na loolu da ko doon naqari parce que moom musta dem sax gis àll parce que dañ ko yar te jàng na am na xam-xam. Batlinski nag combat bi nga xam ne moom la ñëpp gën a ràññee mooy combat moo mook Georges Carpentier Georges Carpentier nag gars yi avant combat bi. gars yi dañu doon wax ne gars yi Batlinski du mës a gagné ki nga xam mooy donc Carpentier Paris Match sax demoon na ba bind ne ah mooy que ne est-ce que tey li ñu war a xam sax mooy ndax benn benn tubaab ah benn tubaab la ñu wax ndax matul ñaari na ñaari ñaari ñaari nit ku ñuul parce que tellement dañoo jàppoon ne. Carpentier day ñëw rek lem ki nga xam mooy Batlinski donc rek daal di koy gagné foofu nag ki nga xam ne mooy donc Carpentier nag Siki da ko daal di dóor. kawote xam nga da ko kawote xam nga da ko kawote Carpentier nag ne ki nga xam ne mooy donc Batistuta da ko pàdd dooru ko de ne da ko pàdd <laughs> loolu waa ji wax arbitre bi xam nga wax daal di consulter nag yeneen arbitre yi ba pare ñëw disqualifier Batistuta noonu la demee de da ko dóor mu daanu dóor mu kawote daanu waa ji jug di kaase ne Batistuta da ko pàdd arbitre yi dem gis seen biir ñu daal disqualifié ki nga xam ne mooy Battling Siki loolu nag nekk histoire bu inédit ci histoire wu nga xam mooy doon wàllu wàllum box loolu nag cinquante mille spectateurs yi nekkoon ci stade bi xam nga nekkoon foofu nag di yooxu naan Siki vainqueur Siki vainqueur Siki vainqueur xam nga léegi nag juge yi daal di dajawaat xam nga xam nga daal di dajalewaat ñoom ñëpp toog waxati seen biir xëccaat ko xam nga rek yëkkati loo xam ne léegi Battling Siki moo daal di gañe parce que cinquante mille spectateurs yi fi nekkul yëpp ñoon loolu amul sikki moo gagné sikki moo gagné Badji sikki nag nekk na tamit champion de France de boxe nekk champion du monde en même temps d' accord gannaaw nag quelques semaines bi nga xamee ne si la amee ndam xam la ñu daal di koy ñu toog ay quelques jours rek ñu daal di jël trophée mi nanguwaat ko ci moom dindi lépp loo xam ne rek palmarès am la dindi licence am parce que lu tax ñu ne parce que voilà moom Badji sikki dañ ko jox victoire mais dafa pàddu waa ji wappaat waajooje moo tax gars yi licence am lépp ñu daal koy nangu ci moom lu tax na gars yi nag fédération française bi et tout ko daal di dàq voilà jéem a fexe ba lépp loo xam ne rek titre la ci moom ñu daal di koy jéem a dindi euh, donc Patlinski noonu la fa jógee daal dem États-Unis xam nga dem ba mu dem États-Unis nag aussi taskati xibaar nekk ci France xam nga di ko di ko di ko di ko di ko xas di ko ngaañ et xam nga mais Siki di. wóoy rek di liggéey di liggéey di liggéey di liggéey liggéey liggéey liggéey liggéey ba dem li nga xam nag mooy donc am benn statut xam defal nañ ko ca New xam lo liberté xam lo mais nag moom loolu yëpp ay kàcc la woon xam lo day kàcc woon parce que moom en tout cas li mu wax mooy que ne lañ doon wax États-Unis naan États-Unis dafa ay monument yoo xam ne dañ ko jël tuddee ko liberté et tout loolu amu fa loolu nag Martin Sikki ba mu koy wax loolu nag gaa yi indi coow. ci États-Unis maanaam dafa dem États-Unis gars ne non fii am na statut boo xam ne statut de la liberté la et tout mais xam nga ne statut bi ñu tuddee statut de la liberté ba na ne gars ne fii amul liberté liberté bi ngeen wax naan daa am amu fa loolu nag daal di jut li jur li nga xam ay coow ci autorités yi nekk foofu noon nag mais nag li nga xam ne mooy donc ñii di yi nekk foofu nag xam la naa nekk foofu noonu nag gars yi commencé tey di ko di ko di ko di ko jàppale di ko jàppale ba le 15 nag décembre 1925. ñu daal di gis li nga xam ne nag mooy donc euh, néewu Batlinseki ci benn euh, gox boo xam ne moo nekkoon quarante et unième rue ci quartier bo Hell's Kitchen ca New York d'accord dañ ko daal di tiire ñaari bal ci ginnaaw ñaari bal ci ginnaaw lañ ko daal di tiire maanaam bañ koy rey sax niñ ko boomee gars yi dañ ko daal di jam bal ci ginnaaw ki nga xam ne mooy donc Batlin Siki donc moom nag noonu la daal di faatoo Marik Fall ah gars yi Mbarick Fall Amadou Fall gars yi tuddee ko Batlin Seki parce que tamit Mbarick Fall lañ ko woowee ñu naan Amadou Fall ñu naan Mbarick Fall noonu mooy histoire en quelque sorte nag kii di Batlin Seki gars yi gars yi donc nag woy leen di like woy leen di abonné jaa ngeen